baax di leen uh, ziar di kontaan ci teew fii ci ci waxtu wi uh, ñu ñëwaat rek ci wàllu xibaar ni ñu koy defee uh, waxtaanee yenn ci ponk yi du ñàkk ci kanam dinañ dellu siwaat ci li nga xamante ne mooy coowal suuf ci réew mi ñu xool nag li nga xam ni moom la teg si wax li ci nit yi wala am lan la ci état bi moom fan lañ ci toll loolu yëpp dinañ ko gën a yaatal ak Cheikh Abdou Wahab njaay nekk professeur agrégé des droits de faculté de droit pardon nekk nag koo xamante it day jàngale fële ca daara ju kawe ja bu ko defee gannaaw 20 bi su ñëwee ñu gën a yaatal loolu nga xam ni junj naa ko léegi xibaar yi ci wolof ci kanam lay doon ak rédaction bi pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko wàllu alam bi ndax nag fan yi ñu génn coow li bëri na mu soxal gazelle yi nga xamante ne euh, monsieur le ministre Abdou Karim Sall doon na ko jéem a yóbbu fële ca réserve am waaye ca mujjantal nga gis nañ la ca am moo ti mu nekk loo xamante ne indi na coow ba activiste yeeg ñi nga xam ne ñooy écologistes yi ñu si bëri yëkki seen kàddu ki nga xamante ni nekkoon na fi ministre de l'environnement di Thierno Lo monsieur le ministre daal jàmm ci plateau maa ngi leen nuyu bu di bi ngeen nuyu itam Binta Diallo Binta ziar naa la. Diallo euh, Aram maa ngi lay nuyu bu baax am mbégte di ànd ak yow alxames bu jot di nuy monsieur le ministre di nuyu les téléspectateurs. ñu dellu si ci li nga xamante ne man ko doon wax sànq monsieur le ministre euh, ay gazelle ñu jële ci euh, réserve yóbbu ko. beneen bërëb boo xamante ne privé la ñu nekk ci bërëb boo xam ne xëy na falañ tàmm di évoluer seen milieu naturel ñu jël yóbbu ci beneen bërëb muy ki coow ki ko def di ministre bokk ci gouvernement bi jàngat li lan la. li may def mooy invité leen parce que da ngeen ma invité pour que mu ñëw ma joxe benn avis d'expert. ci affaire u oryx yooyu nga xam ne bi moom moo indi problème mu coow donc avis bi may joxe moom benn avis d'ordre technique la ci expérience bi nga xam ne bi am naa ko ci espèce yooyu xam nga espèce yu oryx yooyu dañu nekk ay espèces yoo xam ne nii dañu considérer que ni ñoom existé tuñu à l'état sauvage mooy ça veut dire que kenn dootu leen gis ci biir àll bi ba nga xam ne bi dañuy gis disparaître ba nga xam ne bi leen moo tax organisation des nations unies ak ñi nga xam ne bi ñëpp dañuy toppatoo affaire espèces yi ñoom ñëpp dañoo am seen bët boo bi teg nañ ko ci espèces yooyu parce que yiñ ci doon di xam mooy boo demee Émirats arab uni Maroc Tunisie ak Sénégal foofu rek ngay fekk espèces yoo xam ne yii ñu ngi leen di garder ba léegi. foofu ñooñu dañu leen a denc dañ leen def élevage te yooyu du ñu ay espèces yoo xam ne dañ leen war a def élevage moo tax bu ñu leen yoree ba pare dañ leen war a jël. pour delloo leen seen état naturel mooy ça veut dire que yóbbu leen ci espace yi nga xam ne dañuy vivre à l' état sauvage jóge ci état domestique dem état sauvage mais comme dañoo disparaître woon fépp ba nga xam ne ci endroit yooyu rek lañ leen di fekk Sénégal moom dafa amoon chance am ci ay espèces yu mat juróom-ñett yoo xam ni jële woon nañ ko indi ko def ko ci parc gëmbal bi nga xam ne bi moom moo nekk Saint-Louis bi ñu toogee foofu ba nga xam ne bi toog nañu ba booru ay 2003 bi yooyu am na le Demba Ba moom moo nekkoon sax boobu directeur des parcs nationaux daal di ci jël ay espèces yóbbu leen ci zone ferlo bi pour que ñu delloo leen seen état sovage bi. Mm. bu ñu demee foofu nag bañ leen fa delloo Sénégal tey war na toll ci lu mat a am ay juróomi téeméer yoo xam ni am nañ ko ci espèce. waa 500. waaw 500 am nañ ko ci yoo xam ni mi ngi nekk ferlo mais espèce yooyu foofa mooy seen place te lañ leen jëlee gëmbal yóbbu leen foofu moo tax ñu def reproduction. ba àgg ci état boobu muy nag espèce boo xam nit ñi dañ ko teg bët benn danañ peser ñoom ay 150 ay 200 kilos di viande boo xam ne bii aussi nit ñi soxla nañ ko bu baax parce que boo demee ci zone yi nga xam ne gaa yi fa leen def ay recherches pétrolières yeeg affaire yooyu yëpp. espèce yooyu espèce la yoo na leen. pour expliqué nga ne moom laa doon mhm. parce que si nga ne dañoo mhm. nga xamante ni tey mi ngi au devant de la scène nekkul lu war. maanaam ministre bi warul jële ko ci bërëb boo xamante ni euh, réserve privée la. xam nga espèce yooyu li ñu nekk ci waa de disparition moo tax dañ cee teg bët teg bët boo xam ne moo tax ñu def ay convention ak ay règles yoo xam ne ñoom ñoo leen di régir fi mu ne nii am na évolution boo xam ne léegi danañ permettre que parcs nationaux yi. di signé ay contrat ak ay privé bu ñu signé contrat ak privé yi ci la ñuy leen di permettre ñu jël espèces yi yóbbu leen pour que ñu gën leen mën a. toppatoo. mais ce que monsieur le mais dafa am mais dafa am parce que dafa compliqué pour que nga def lu mel noonu. parce que d' abord contrat de partenariat bi nga xam ne bi moom nga war a def avec la direction des eaux et forêts. parce que fi ne nii direction des parcs nationaux ñoom ñooy suivre ORIX yi mais texte yi ki ñu jox autorité. boo xam ne bi lu ngeen def ca bokku ca mooy direction des eaux et forêts. Hmm. ñooñu même booy def transfert war nañ cee bokk. am nay commission internationale tel que USN bi nekk fii nga xam ne bii ñoom ñi ngi nekk fii nga xam ñoom ñoo def euh, plainte bi ñu def nii yooyu ñooñu dañoo am seen droit de regard boo xam bi parce que convention bi nga xam ne moom mooy gérer espèce euh, kii yooyu dañoo am seen regard bu ñu war a def ci contrat bi nga xam ne bii moom nga war a euh, utiliser pour yóbbu espèce yi beneen bi ñu des transport bi ci boppam. Mm-hmm. xamul tax espèce yooyu transport la leen metti parce que boo leen dee transféré dañu nekk ay animaux yoo xam dañuy am stress. d'accord gis stress boobu ñuy am mooy tax bu ñu leen dee transféré xam nga lan lañ leen def morphine. leen leen di jox nelawloo leen pour que ñu soog leen mën a transféré parce que yi nekkoon gëmbal Saint-Louis ba ñu leen di jël di leen yóbbu Ferlo israéliens yi la ñu dem jël leen mu ñëw accompagner. direction des parcs nationaux ci guddi lañ ko def jox leen morphine ñu nelaw pour que ñu yóbbu leen parce que mais la leen stressé rek waaw mën nañu dee wala ñu dara dal leen. Mm-hmm. te affaire bi am nii ak euh, monsieur le ministre. Mm-hmm. kenn xamul ndax euh, disposition yooyu yëpp jël nañ ko. Mm-hmm. le ministre a parlé aujourd'hui sans convaincre par exemple nee na moom mi ngi xaar sax plant bi nga xamante ni euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeex ci. déclaration universelle voilà déclaration universelle des droits de l'homme mi ngi koy xaar yow yow ministre de l'environnement nga woon lu mel nii su tegoo ci sa kaw yaakaar naa ni dafa waroon jàkkaarloo ak askan bi. expliquer ce qui s'est passé réellement est-ce que monsieur le ministre bi nga xam ni moom moom mooy moom moo moom ministre la déjà kon euh, am na conflit d'intérêt dans cette affaire la waroon na jël ay espèces yi nga xamante ne nee nañu c'est en voie disparition di ko indi nee di ko denc si si ay réserve privée est-ce que loolu ministre de l'environnement am na ci droit xam nga man problème boobu euh, gisuma réserve ministre bi euh, li ma mën a wax mooy espèce bi bu nekkee fii soo ko bëggee ci yan critère nga koy yóbboo lan moo régir transfert yi ngay def ci espèces yooyu li ma ci mën wax mooy espèces yooyu ay espèces yu raar lañ yu nekk en voie de disparition kenn gisatu leen woon ci état sauvage dañ leen doon confiné au Maroc en Tunisie au Maroc Sénégal am chance amoon ci ci parc Gëmbal Gëmbal ña fa nekkoon xam nga dañ nekk ci booru zone côtière bi te ñooñu état sahélien bi nga xam ne fa la ñu war a nekk problème mu température yi dañ koy kii yii nga xam ne bi leen dégg naa ni jëlee nañ leen ñu ngi leen jële Ferlo soo leen jëlee Ferlo léegi soo leen indee léegi ci booru géej bi ou bien ci booru côte bi yaa ngi changé encore seen nature biologique kooku dafay joué ci ñoom. mais quest que di la loi monsieur li loi bi wax laa la bu fekkente ne yow jëloo disposition yooyu. dama lay expliquer li loi bi wax mooy su fekkee léegi dañoo def dañoo am évolution bu jëkkoon. doonu daawuñu woon permettre ay zones yoo xam ni amul dépeuplement ngay jël ay espèces ci ko yóbbu mais dafa am évolution au niveau de la gestion des espèces mën nañ la permettre léegi nga def un contrat de partenariat avec benn société privée tel que ñu ñëwal ni ay Bandia ak ay yooyu ñoom mën nañoo jël ay espèces mais espèces yi dañ ko teg ci ay normes il faut que les conventions internationales dañu war a dikk xool li ngay siñe lan la la direction des eaux et forêts dafa war a xool li ngay signé lan la fi nga leen di yóbbu habitat bi ci boppam war ñoo xool boo xam est-ce que zone côtière nga nekk est-ce que ko jëlee ci zone sahélienne bi di ko indi ci zone côtière bi yooyu itam dañ koy xool. Hmm. transport bi dafa transport bi ci boppam dafa metti parce que animal la boo xam bi warul am stress boo koy déplacé guddi nga ko war a yóbbu. da ko war a jox morphine muy nelaw. monsieur le ministre loolu wax nga ma bëgg a xam damay àggale damay lay wax procédure. su fekkee léegi nag ministre non dafa attend. mais dafa mel ni da nga di protéger sa yi lan moo mën a xam nga fi ne nii yow nga mën a protéger man je ne parce que je n'ai pas vu le contrat. dafa naa baal man je ne défends personne xam nga bu ñu nee ministre bi dafa signé benn convention avec les parcs nationaux mm. man bu ma gisul convention mënu ma prononcé convention mais yow bi nga xam ne yow yaay gëstukat mën naa laa jox yow ay élément yoo xam ni bis boo demee léegi di laaj convention bi après ñu jox la ko di nga xam boo xam convention bi jaar na yoon ou bien jaarul yoon dama la ne boo gisee convention boo xam ne bii direction des parcs nationaux ñoom ñoo ko signé directement ak structure ministre bi sans pour autant mu am avis de la direction des eaux et sans pour autant que moom avis de la commune de la convention qui gère les espèces migratrices parce que ñooñu ñëpp dañu war a joxe seen accord ci affaire bi parce que espèce bi ci boppam moo laaj loolu su fekkee gis nga ne transport bi dañ ko def comme jël benn camion nii rek dugal ko ci di ko yóbbu kooku normalul parce que animal bi warul stressé dafa am ay conditions yoo xam ne dañ ko décrire yoo xam ne moo war a permettre muy dem mooy da ko war a nelawloo bu mu stressé fu mu jëm da ko war a xool ca sur des mois lañ koy defa ba xool ko ba mu ne habitat bi yooyu yëpp réglé na ñu soog a def tension pour loolu li nga wax nii dina dina jafe pour ñu xam ko. Mhm. ndax ministre boobu jiitee département ñi nga wax ñëpp moo leen jiite donc dina jafe pour ñu xam ndax processus boobu respecté nañ mais man li may li may bëgg a taxaw mooy. Euh, su fekkee protocole la boo war a signé. Mhm. dafa am lu ñu teg nga war ko remplir. Mhm. kon bintaam yi boo amoon xaalis am bërëb bu mu leen denc rek war na mën dem lijjanti ko. n'importe kii peut peut le faire. non bintaam yi bu fekkee ne xam nga am ñoo xam ne dañuy jël ay gazelle yeeg oryx yeeg di doon dugal seen biir kër yi bàyyi leen ñuy taxawaalu foofu ci ay tokkër yeeg affaire yooyu. si si c'est des animaux yoo xam ne kenn du leen gérer noonu dañ leen a protéger wax ay normes yi nga leen war a yóbboo. xam nga yéen contrat bi ngeen di wax ni bu ngeen demee jël contrat bi mais da ngeen laaj waa UGN ngeen laaj leen ñoom est ce que contrat bi bi ñu ko doon signé est ce que laaj nañ leen seen avis suñu la nee non première ngeen dem direction des eaux et forêts xam nga dafa am direction des parcs nationaux dafa nekk ci biir direction des eaux et di sàmm espèces yi mais amul droit moom signé contrat yéen dem leen ngeen laaj contrat bi. est-ce que c'est la direction des eaux et forêts moo ko piloté ou bien c'est la direction des parcs nationaux si c'est la direction des parcs nationaux amul prérogative parce que su fekkee ay transfert d'espèces la c'est la direction des eaux et forêts moo ko mën a def ngeen laajaat euh, oryx yi bi ñu koy yóbbu ban heure la bëccëg lañ ko yóbbu ou bien est-ce guddi lañ ko yóbbu est-ce que bi ñuy dem endormir nañ leen jox leen de la morphine ñu neloo pour que ñu bañ a stressé yooyu yëpp su ngeen ko xoolee ñu remplir ko ñoom. le contrat est valable. léegi li Binta ku ko remplirul lan moo la ci war a mën fekk. ku ko remplirul ku ko remplirul mooy lan exposé nga Sénégal ci ay mesures yoo xam ne dañ ko ko teg parce que le problème là c'est un problème qui est très sérieux mhm. parce que toutes les organisations qui s'occupent de protection des espèces dans le monde ñi ngi braquer les regards sur le Sénégal. deuxièmement ces espèces c'est des espèces qui sont rares en voie de disparition nga xam ne bi da nga koy localiser léegi ay Maroc. Émirats arabes unis Tunisie Sénégal am ci ba nga xam ne bi léegi les professionnels de l'environnement dañ doon wax sànni ni espèces bu ñu paree au lieu que ñu koy jël sax di ko dugal ci ay parc dañ koy jël topp gis la muraille la, la grande muraille verte bi nga xam ne bi la moom lañ doon def foofu la ñu envisagé woon pour que bu ñu paree ñu jël leen fa sànni leen fa ñu repeupler toute la zone la boo ko day nekk na à l'état sauvage parce que ñoom seen nekkin état sauvage la war a doon ce qui veut dire Sénégal n'a par rempli les conditions par rapport à ce contrat-là mën na dem ba pénaliser le Sénégal sur les fonds yi nga xam ne mën nañ mën nañ koo am en provenance du Fonds mondial de l'environnement. mais déjà est-ce que fii ah. au niveau national war nañu mu ubbi enquête pour xam si le ministre a respecté les dispositions ou pas. kan moo ko war a ubbi. non xam nga fii ci Sénégal par force mu am parce que fii y a des ONG. qui travaille euh, l'organisation des droits de l'humanité bi nekk fii. Mm-hmm. mais dañoo seen mot à dire sur tout ce qui ñoom tout ce qui espèce dans le monde ñoom dañ koy gérer parce que xam nga dafa am euh, euh, la voirie migratoire la yi nga xam ne bi la ñëw xam nga boo toogee fi nga gis léegi benn nag bu dee benn xar dee mais tan yi ngay gis ñu ñëw di lekk affaire boobu ñooñu dañu bokk ci suñu préservation suñu nekkin ce qui veut dire que espèce boo gis am na vocation bu mu am ci biir àddina bi moo tax les droits de l'humanité am na droit de regard sur ce qui se passe am nañu droit porter plainte les ONG yi nekk fii aussi am nañu droit pour porter plainte le fonds de l'environnement ñëpp braqué nañ seen ay regard sur le Sénégal ce qui veut dire que ce dossier ne peut pas être un dossier qui va dormir euh, dans les tiroirs ou bien pour on va parler pour quelques jours mu dem Sénégal li mu war a mën a def mooy jël contrat bi bu fekkee contrat bu baax la mu wane ne respecté nañu sart yëpp mu publier contrat bi wax ko su ko deful leen rek moo koy rël cest à mu xool nombre d'espèces yi nga xam ne bile dee nañu mu def wuti leen pour dikk remplacer leen teg leen ko fii dana nekk loo xam ne dina compenser tout ce qui su fekkee ne am na ñoo xam ne soom joxoon nañ leen ci espèces yi ca deewaguñu nan ko delloo fu mu jóge woon au niveau du ferlo ñu delluwaat seen état sauvage pour mun a def sinon il ne peut rien cacher sur ça kenn mënu ko nëbb alors dañu signé euh, convention de Washington état yi am euh, obligation wu sàmm euh, li nga xamante ne mooy mooy mala yi au-delà de oryx xëy na tey tey bii moo fay mais transport d'animaux yi gestion de nos parcs nationaux euh, loolu it dina baax ñu taxaw si parce que tey dossier bii moo feeñ mais yow bi nga fi nekkee lan nga jot a def pour fexe loolu noonu mu nekk loo xamante ne day jaar ci yoon ndax saa su nekk ñu décrier ay faits yoo xamante ne nii nit ñi dañuy wax rek mais peut-être pënd la tey bu subaa ñu fàttewaat ko nekkaat ci la. xam nga man bi ma fi nekkee d'abord man dama doon repeupler parce que am na ay yoo xam ne nii man man leen jógee ñu jógee Espagne ma dem aéroport Saint-Louis jël leen yóbbu leen ci gëmbal bi nga xam ne bi la fa kii yi nekkoon orix yi nekkoon. man ba ma fi nekkee aussi gis nga yii gars yi di def euh, parc national jël di la may ay pan tey ou bien ñu may la ay autriche ay affaire kenn kooku fi ñeme woon a def ba ma fa nekkee amul parce que dama doon veiller à la protection stricte de la faune parc nationaux yi ci seen bopp dañ demoon ba man def naa organisation na benn conférence internationale pour les parcs transfrontaliers rien que dama bëggoon ñu gën leen a boole pour que espèces yi ñu mën leen a gën a repeupler ba pare ñu régler le problème du tourisme parce que espèce bi ngeen gis ni li tax moo am importance aussi ci réew comme léegi dañ ko gisatul à l'état sauvage fu mu nekk touristes yi dañuy dem ko seeti ba pare aussi direction de la chasse ñoom dañoo am benn regard sur cette espèce la parce que kenn amul droit rëbbu espèce boobu c'est des espèces protégées kenn du leen laal kenn du leen rëbb kenn du leen rëbb moo tax touristes yi di ñuy ñëw di ko di ko seet si parcs nationaux yi mën nañoo am parce que am na am na benn débat boo xam ne bi dafa nekk en cours. parce que dafa am ay nit yoo xam ni dañuy demander à ce ñu def la privatisation des parcs am ñoo xam nii dañu bañ privatisation deux écoles qui s'affrontent actuellement man je fais je faisais partie de l'école bi doon xeex pour bañ ne parcs nationaux bu ko kenn privatiser dañu war a bàyyi parce que ñun naka la ñuy joxe suñu parc privatiser ko jox ko ay yoo xam dañuy jël suñu espèce yëpp di leen jaay. ak di leen yóbbu si yeneen réew yi bu yàggee. bu yàggee boo demee ci parc Hann bi nga xamante ni moo gën a jege. Mm-hmm. mais da ngay ruus. espèce amu fa. dara amu fa lion yu fa nekk dafa mel ni lion yu. am cent ans non de Hann ah, boo bëggee boo bëggee boo bëggee boo bëggee xool nag sérieusement nag ay parc soo bëggee xool sérieusement ay parc yoo xam ni état du Sénégal ma nga fay def ay espèce da ngay dem parc gëmbal. waaw ko amul. non parc parce que ah, vocation la gën la gën am mais fi nga xam ne bi moom fi lañ tudde parc boo xam boo fa demee fekk fa les parcs ñu fay def ay espèces da ngay dem parc de gëmbal da dem parc de Djoudj da ngay dem parc Niokolo-Koba nga dem au niveau du Ferlo et puis état bi aussi mi ngi liggéey ci di jël ay parc yu mel ni ay parc de Bandia ñu ngi leen di jox ay espèces kooku dañu am droit de regard. ci li xew ci biir parc boobu xam nga Bandia boobu nga gis noonu. foofu que day stressé. ñooñu dañuy stressé xam nga animal boo jëlee animal boo gis dafa am microbe yu bëree bëri bëri bëri yu muy denc ci biir yaramam. du génn gis nga microbe bi mu yor microbe bi mu yor gis nga microbe bi mu yor ci biir yaramam moom du ko génne mais boo ko stressé le micro bi génn ou bien noonu ni suñu mbokk wala fi def naan xaaral dikk ma raay ko xaaral ma raay ko nii kaay ma def gis yooyu boo ko dee def mooy indi ay stress ba tax amee animal bi commencé génn nag micro bi nga xam ne emmagasiné woon na ko mais animal boo gis denc na bokk de microbes mais du ko génne il faut nga stressé ko pour nag moo tax oryx yi morphine lañ leen di jox pour que ñu mun leen ñu nelaw ñu soog leen yóbbu gisee bi ñuy jëlee Russie yi euh, gëmbal israéliens yi ñoom ñoo ñëwoon accompagner la direction des parcs nationaux def morphine bi loo ak bët yooyu soog leen a yóbbu mais parc yi nag boo fa demee moom gëmbal ak yooyu yëpp espèce yi ñu ngi fa nekk. Euh, ci ci ci dossier bi ba tey ci article bi nga xam ni sànq maa ngi koy lire euh, ci ministre Abdou Karim Sall dafa ne kenn mayu ma ko dama ko jënd cest à tey valeur tamit marchande. loo waxul la daf ko jënd de. daf ne daf kenn mayu ma ko kenn jaayuma ko c'est toujours une propriété de l'État xam nga loolu mooy c'est-à-dire contrat bi. nga xam ne propriété nga am sañ-sañ yow yow ministre bi nga jël nga yóbbu. lu état bi lu euh, bi moom kay xanaa ñëpp. man ma xaaral man défendre ma li ma li ma dégg ministre bi li ma dégg ministre bi wax ko. mooy convention lañ ko signé. mu yóbbu ko ah, ci déet defal nag man ne ma ko signé man du ma ko wax yéen yéen bu leen neexee ngeen wax mais convention daal moo ko jox. léegi yóbbu na ko toujours Russie état yi état bi moo ko moom loolu d'accord naa ci bu ñu ko signalee convention te convention répondre aux normes ak itam normes yi nga xam ne bi la moom ngay jëlee ay Oryx pour yóbbu ko sa ferme nga def la norme habitat fa nga fa ko koy yóbbu gars yi dañoo war a ñëw xool ko ba kii na sa conforme transport bi wax naa leen ni dafa war a conforme ñii signé aussi dafa am ñoo ñu war a signé ak ñu warut a su fekkee contrat ministère bi ministre bi remplir na yooyu yëpp deful lu fi kenn deful léegi nag quant à dire que bon les conflits d'intérêts des trucs comme ça je laisse l'appréciation euh, aux autres de juger mais si le contrat est conforme nga xam ne bi ñu koy def direction des eaux et moo ko war a def war nañ convention internationale yi gars yi joxe ci seen accord parce que kooku kenn warut a def transport kii ca amoo l' de des institutions internationales dégg soo ko amee ba pare ñu xool oto bi ko war a yóbbu ban waxtu lañ koy yóbbu naka la ñu def fa nga naka la defee nga respecté norme yooyu yëpp am nga ci droit parce que maintenant il est permis que ngay signer ay contrat maintenant avec euh, les privés pour que ñu régler la diversification des espèces. est-ce que waruñu ko wàccee justement son poste de ministre pour xool euh, ñu mën def enquête bi parce que comme affaire bi dem na ba le plan international c'est sérieux yow wax nga ko en tant que ministre de l'environnement je pense que war na mettre à l'aise quand même. yow autorités wala ñu <laughs> a suscité un yéen li ngeen war a def yéen ñi en attendant que l'enquête euh, déedéet xam ngeen lan ngeen war ki mène l'enquête fii nii nii moom laa doon laaj sax en tant que man dommage man yéen yéen a moo woo fii en tant que bi ngeen may woo fii sax man dama ne woon du ñëw parce que xamul ma ne woon ñëw xam leen ne man quand je suis ministre de l'environnement et du soo ma wooyee ci benn affaire damay ñëw dama ci wax mais période bi contexte bi ci seen boppam bi mm. eh, ma seri seen wooye dama ko wax dëgg yàlla man mën naa laa wax man sama xalaat mais bëgg maa ñëw seen plateau parce que période bi foo fi waxee ñu ne ma Sall ngi bëgg a euh, def remaniement ministériel ministre bi dafa ñëw pour jéem a wax pour dugg ci biir affaire boobu moo tax man euh, avis d'expert la dama la wax li ma ci xam ak ni contrat beeg waajaak yooyu yëpp affaire Macky Sall ak seen liggéey boobu dégg nga ma wax lu muy jar hmm? gazelle oryx comme état am na bay jënd léegi gazelle oryx lu muy jar a wax naan la oryx minimum ay 150 kilos 200 kilos lay lay lay peser. nee naa la foo demee ci industrie pétrolière yi affaire boobu viande yàpp oryx kese la ñuy seet oryx moom lu cher la waaw 250 ak cent cinquante kilos lu koy peser. Mhm. te nekk viande boo xam ne bu bu rare prisé laa la wax c'est prisé nit ñi dañ ko soxla. bu doon yow la ndax di nga ko def am sa réserve dem jëli oryx yi yóbbu ko si. yóbbu ko man waaw. nu man déggal na nee man ba ma fa nekkee pan pan yi ngay gis nii gars di ko jël ak ay eh, autobus yi di ko jox sëriñ Cheikh di ko yóbbu man dama ko tere woon man bu ma dikkee fu ma dikk taxi yi laay respecte on me demande de protéger les espèces. je protège les espèces mais parc. am na peuplement. Mhm. dama leen di repeupler mais du ma jël di yóbbu mais quant à nag certaines personnes bu ñu dikkee fekk ce que la loi leur nañ ko def mais boo ko dee def. respecter les procédures boo respecter les procédures y a aucun problème waaw espèce bu mel noonu dañuy wax ne bàyyi ko moom kese ci ci benn bërëb baaxul bu yàggee mën na éteindre problème de consanguinité day am est-ce que loolu lu wér la. mais xam nga euh, espèce yooyu du ñu ay espèces yoo xam ne dañu war a vivre à domicile xam nga fi fii nii comme dañu gisoon ne dañoo disparaitre am ñoo xam ni dañ koo jëloon denc ko ci seen ay domicile dañ leen bàyyi ñuy dem foofu ay système de reproduction mais reproduction bi sax du dem ni mu war a demee parce que dañu war a dem à l'état sauvage autant de l'espace yóbbu leen dans des que yii nekk nga gëmbal boo am na ay oryx yu fa nekk mhm. mais leen jëlee yóbbu leen fële ci biologique daf daf ciy joué donc booy def ay transfert war nga bi fa ñu jëm ak affaire yooyu yëpp mais daal ñoom état sauvage la ñu mën di exprimer woo boo leen tëjee ci yenn kii yi ba yi ñu yóbbu woon gëbu fële bañ leen fa yóbbu ay 2 lañ fa yóbbu xama 3 4 après mat nañ 500. Mhm. seen reproduction bi ñuy def foofu mun ñu koo def bu nekk nekkee ci zone côtière yi ou nga tëj leen en captivité waaw. alors autre chose tey yan mala. ci ci réew mi mën nañu wax ne ñoo ñoo nekk ñoo xam ni des espèces à à protéger. yu mel ni Oryx nga xam ne tey valeur bu mu am yaa ngi koy wax euh, foog ñu préserver ko parce que ni mu am ci ci ci finalité nit ñi bëgg soxla yàpp ñii di jëfandikoo béjjën yàpp ku nekk lañ ko soxla tey yan espèce la ñu war a gën a protéger ci jamono ji nga xamante ne lañ ne. xam nga boo demee au niveau de la direction des eaux et forêts dañ fa am benn partie boo xam bi ñoom ñooy gérer amodiation bi. amodiation bi mooy chasseurs yi nga xam ne bi dinañ ñëw fi yëpp gis nga dañu wut dañu jël ay période yoo xam ni ci ñëw di chasser. dañ lay jox agrément jox la permis nga mën a chasser donc toute espèce buy traîner fii rek Sénégal mi ngi lay protéger buggul ñu lay rey du n'importe quoi mais braconnage bi ci éléphant yi la ëpp soo demee fii ak ci oryx yi ngay gis nii ak ci gazelle yi ñooñu ak suñu yooyu yooyu bis yooyu yëpp dañ leen di protéger parce que nit ñi dañ leen soxla xam nga éléphant moom moom la gars yi gën a soxla parce que xam nga xam ne bi la moom lay englobé plus ni mu toll ak poids mag corne yeeg ak affaire yooyu yëpp dañ koy protéger mais la chasse est réglementée Sénégal dafa am ay période yooyu chasser dafa am ay agrément yoo xam ni moom ngay am il n'est pas permis à tout un de chasser c'est que Sénégal dañuy fermer les yeux seen zone mais nga xam dañuy xëy benn suba jël seen benn fetal rek topp ci àll bi di def tuy tuy tuy heure bu neexee di rey ay gëmmeen ak ay affaire yooyu yëpp ñoo ñëpp dañ leen war a parce que dafa am période de chasse zone yi dañ koy wax pour nga dem chasser ji fa ainsi de suite affaire u boo dikkee ci benn place di fa jël ay matt dafa am ay zones yoo xam ni c'est des zones qui sont reboisées. Mm-hmm. foofu nga war a dem pour jël fa kii mais war a dem rek fu la neex rek nga dagg garab dem. ainsi de suite enquête na ne euh, quand même euh, tout se fait ici au Sénégal avec la complicité si surtout domaine nu dagg bois bi ngay wax ak euh, protection des animaux dafay am ay complicité si biir on a même les les eaux et si enquête yu bari. ce qui veut dire que le ministre xëy na dafa utiliser son autorité pour dem jëli yoo loo xamante ne respecté wu les dispositions yàlla weer ko ci yoon bi. loolu yéen journaliste aussi prendre ses responsabilités loolu yéen journaliste yi def investigation yi yéen a mën a wax ab wax lu ma doon man loolu wax dëgg yàlla <laughs> mënuma jë wax. merci merci beaucoup monsieur le. Futur Média Aram Touré ak ganam ci soir d'info. jërëjëf euh, Cheikh Diop ñu dellu siwaat suñu gan di monsieur le ministre Thierno Lo euh, ñëwaat ci ci ci actualité ndax euh, fan yi gis nañ ne coow li bëri na gannaaw kàddu yi nga xamante ne Moustapha Cissé na ko ci ay audio ñu gis it parti bi. Euh, dàq na ko APR groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñoom it génn ko euh, ci ci ci wàll bi tey mu nekk simple député euh, ku mel noonu taxaw tey yëkki wax yu mel noonu teg ko ci ndodd yenn ci ci kilifa yi ci ci réew mi lan la loolu moom du ma ko rafetlu parce que je pense que ci Sénégal saaga ak ñàkk teggin sax kooku moom kenn ku ko mën a défendre amul mais nag dafa am loo xew ci réew mi loo xam ne lii je crois que ñun ñëpp am na ci ay responsabilité parce que Sénégal dafa nekk réew boo xam ne dañoo mujj toog ba wax ju ñaaw ak saaga di fi joxe ay poste hmm. Sénégal nekk réew moo xam ne tam da ngay saaga pour di am ay nombre de vues di gagner de l'argent ci Facebook ñu naan la partagel saaga ngay partagel saaga emel saaga ngay emel saaga donc culture saaga ak culture ñàkki teggin dañ ko dikk dugal ko ci biir réew mi ca loolu ku ko daan def dañ laa war a yar ku ko daan war a def dañ laa war a teg de côté. Mm-hmm. donc le fait ñu bàyyi ko muy dem xuloo yi xasse yi saaga yi yu ñaaw yooyu ñu bàyyi ko muy dem a dem a dem ba ak si yenn niveau yi kon ñun ñëpp am nañ ci responsabilité. parce su fekkoon ne ko saaga téye sa téléphone nii ñu gis nga saaga mbaa nga bind saaga ñu jox la leçon ou bien ñu écarté la wan la ne bokkoo ci kon defe naa nit ñi dañu def nii Moussa Cissé Lo nag am na loo xam ne man metti na ma ci parce que quand même digganteem ak président Macky Sall am na lu ma ci xam yàgg na njuumte dina am mais euh, defe naa li mu def war ko mën jéggal non man buñ ma déggaloon dañ koy jéggal parce que man je dis que wax naa ci wax naa ci parce que demandé naa euh, président da ko sa diggante ak Moussa Cissé Lo il est vrai que li mu wax ëpp na mais bu ma sañoon bu jéggal ko ko woo ko yedd ko waxtaan ak moom non man dama ko bind dama ko bind wax ko ko mais amu ci retour mais sama diggante la bu ma ko war a def parce que Moussa Cissé Lo sama mbokk la président Macky Sall suma allié la man nag nit ñi ŋàññi la yuuxu la du tax sama amitié ak yow ma dindi ko du tax sama mbokk ak yow ma dindi ko du tere la ma ca war a wax ci defar ma wax ko saaga yi warut a nekk kenn waru koo mën a défendre mais diggante bi dem na noo xamee ni nii defe naa nit ñi war nañ cee doxaat pour jéem ko defaraat pour que ñoom ñu àndandowaat pour que li ñu yéene woon Sénégal ñu jéem ko def moo gën a rafet. merci merci beaucoup euh, ancien ministre de l'environnement on passe à la page.